ma jàpp nañ leen ci Kaolack ndangaan googee ñaar ñoo xam ne nee ñu ci mbir ma la ñu bokkoon daal dina ñuy daw diggante Gambie ak Mali libération naan koon ka nga xam ne moo yoole wax fa ñu dencoon waajoojee daal dinañ koy jàpp jàpp ka nga xam ni ba mbir ma amee dafa di bu vidéo di xupp président ki Sall jàpp nañ ko waaye ka nga xam ni moo sabab mbir ma bokk ci këru diine moom ci boppam ma nga Gambie Interpol lañu ko boolee turbine yéene kaay naan man ca diiwaanu Kaolack jàpp gi daal ma nga mel ni tulleeg màlle ci mbir mi yéene kaay bi dee média bi naan man terewul ni parrainage bi ma nga mel ni sabaru ñooñu ci gëm sa bopp xale yi bugaan gay dan yi ña nga ràngoo seeni t-shirt yore seeni pancarte yore seeni woto yoo xam ne daanaka parrainage bi sax lañ ca daal di def di rungum rungum yi nag biir Sénégal yéeni kaay bi nan maan daanaka waa gëm sa bopp ñoo daal di attirer askan wi jëmale nag ci wàllu parrainage bi le témoin yéeni kaay ne ko déet wax ji moom moo di gëm sa bopp moo nekk ci combaxtalu mbir mi ci opération de terrain yi nga xam ne mi ngi am ngir wàllu parrainage bi l'évidence bi daal ma ngay fay dëgg gars yi dajale nañu ba mardi taali ca diiwaanu Touba ñu ne déeta waaye Thiès moom ñu daal di koy ratissé te laataa lool diggante Kédougou fa nga xam ni moom la laloo waa gëm sa bopp dajale woon nañ fa daanaka ñaari téeméeri junni ci parrainage fi ne nag moom gars yi nee ñu seen mbëbét moom moo di lu ëpp million ci parrainage yoo xam ne daañu ko dajaleel gëm sa bopp ak Bougane Gueye Dany yéene kaay bi ne lii kay jar na sampub laaj ba tey lan moo tax nag équipe gëm sa bopp yi dong la ñuy gis ci terrain bi ci dajaleem parrainage bi lan moo xew lan moo tax nag collecte parrainage image bi yitteel Bougane Gueye Dany waaye tam yitteel ak équipe am ba nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg ña ngay rungum rungumi nag di wëri parrainage fuñ ko mënee amee te loolee ma ngay fay di def effet ndax seeni parrainage maar day taali sa kan na na am nañ yoor yoor naan maan waxtu woowu direction générale de élections daal daal ñu nay gëmb tëxlu ci li mu ne du jébbal Ousmane Sonko ay fiche am daal di joxoñ Sénat ko acca l'info yéene kaay ne ma moo taxit Alioune Tine daal dina yëkk kete me cendee la faal li mu def nii ware na ak péetéem te koon warta jiite bërëb boobee xam nga Sénat mi nga xam ne mooy tëgg ne leen Ousmane Sonko moom jébbal leen ko ay fiche am ngeen ni déedee duñ ko ko jébbal ndax yoon nangu ko loolee nag wane na ni directeur bi mënta jiite DGE tribune yéen kaay ne ko ma ne la cendee la faal nee nañ na able waaye maître Sidiki Kaba it nee nañ mënta jiite ay élection ci réew mi ndax na ñaar ñii élection yuñ tëgg élection la yoo xam ni day lu ne mën na ca am ndax Sénégal li ñu bëgg saa si téembe mooy élection yoo xam ne ñëpp ci bokk waaye tam bëgg nañ élection yoo nañ werante daal ca am l'enquête quotidien naan man en tout cas xëccoo bi diggante ministère de l'intérieur ak Ousmane Sonko tey waalo gën a aay l'observateur naan man ñàkk jox Ousmane Sonko ay ficham daal dinay andi ab débat ci réew mi le témoin yéene kaay naan kon en moom Sénat ci boppam DGE daf ne ko joxal foofu rax ci dolli nag nekkee ci résistance ba wal joojo njaay àlluntin ak expert électoral bii di njaga si la nee ñu DGE nekkoo ci dëgg laas naan en tout cas DGE fa mu ñu koy jébbal lenn le soleil yéene kaay naan maan boobu président Macky Sall ma ngay ay travaux zone économique spéciale la bëggal jas tribune yéene kaay naan maan moom premier ministre Amadou Ba daal nay dalloo forage boo xam ne fandan la daal di nekk moom Maguette Sène maire bu Malicounda daal di tàqale ak mar ña nga xam ne ñoo nekk ca fandan googee yéene kaay bi dee média bi naan maan gannaaw taaxum Sinthiou Mbadaan pël yi nga xam ne amoon nañ ko 2018 fanweeri million ak juróom defar nañ ci millions daanaka juróom-ñeent fukki million ñu daal di koy def ngir tàqale Malicounda ak dëkk dëkkaan yi ci mar lu toll ci juróomi téeméeri millions ñu def ko ci SDE ngir falox wolof falox séeréer sali aérodrome sali Médine Malicounda Carrefour Mbaling Warang ak Pointe Sarène yéen kaay bi naan man ñu dalal fa premier ministre Amadou Ba mu daal di dalloo forage boobee yéen kaay des médias bi naan man demal il à Morphil ak Moussa Sow mi nga xam ne daanaka Abdoulaye Wade xamle woon na ko ci jamonoom moom président Macky Sall ñëw dippee ko Moussa Sow walal moom mi jiite Puma président Macky Sall mën sukkandiku ci moom ci diwaanu Podor ndax fukki forage ak jàppale waa Podor it piment ma nga ca tribune yéen kaay nan man waaye ak lu mën am pôle bu communication bu gëm sa bopp nee ñu maître Sidiki Kaba ak Thiendella la faal moom nañ leen abal rek fa yàllaahu tëggi élection moom ñu ko def fii ci réewum Sénégal le soleil yéen kaay nan man président Macky Sall boobu ma nga bëgg su xali jas tribune yéen kaay nan kon Moussa Sarr njiital étir ma ngay woo Mouhamed Boun Abdallah Dionne niki noonu it yeneen responsable yi ñu daal di del si seen xel ndax xam coow li coow li mooy dogalu président Macky Sall lan war a sukkandiku waaye tam sukkandiku ci tabb gi nga xam ne tabal na leen ko Amadou Ba ngir mën a jàll daal di wéyal nag plan Sénégal émergent goo xam ne mën na suqali Sénégal à tout moment le soleil yéene naan man Sénégal ci boppam téeméeri milliards daal dina koy am diggante BOAD e ak BIDC talaata ji lañ ko xaatim ca Lomé ñetti convention bu financement yoo xam ne war na soxal ñu daal di prolonger TER bi ba aéroport international Blaise Diagne war a soxal ñu daal di yeesalaat jam ñaajo waaye tam VDN bi ñu daal di koy talal ba ndar géej ministre de l'économie du plan ak coopération bii di Doudou Ka Le Soleil naan maan moo xaatim lu ni mel liggéey ba war a door daataat diggante Tiwaawoon Mexe ci autoroute à péage bi waaye tam diggante Dakar Tiwaawoon Saint-Louis ci VDN 3 bi boobu Vox Populi di ma xamal ne léegi leer na senegal góor ñi ci boppam ñoo ëpp jigéen ñi lu ëpp fukki million ak juróom-ñett ñoo am ci doomu aadama fii ci réewum Sénégal waaye lu ëpp xaaj ba léegi ay góor lañu te li ëpp ci askan wi ñi ngi diggante Ndakaaru Thiès ak Diourbel moom léegi mooy département bi nga xam ni moo ëpp ñu ko dëkkee yéeni kaay bi naan man am na ñoo xam ni moom nee ñu recensé wuñ leen te tàmbali nañoo ñaxtu daar daar di xam le ni recensement gi am na lu ca taqee 24 heures yéeni kaay naan man papito kara faatu na ci géej gi ngir bëgg a dem Espagne turbine yéeni kaay naan kon laaj bi jara samp moom moo di diggante maître Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall ay alternance yoo xam ne ay soppi la sénégalais yi nag defoon ko ngir ëllëg gu ngir yaakaar goo xam ne daal dinay am loolee lan la soppi ci dunduk sénégalais yi soppeeku na sénégalais yi ndax gis nañ seen bopp ci alternance yooyee sénégalais yi ndax lañ leen digoon boobaak léegi ña ngi cay teg seen i gën ndax sénégal ñoŋ na soppeeku na ci anam wi gën ndax ñoom ndaw ñi ci boppam nga xam ne xam leen nañ ne fii ci sénégal tranche d'âge bi diggante fukk ak juróom ñeent jàpp fanweer ak juróom la muy réew moo xam ne ndaw yaa ëpp mag yi ndax ndaw yooyee ñu ngi gis seen bopp ci réew mi ndax ndaw ñoo ñee mën nañ si xool seeni waajur tey te naan leen jafe-jafe bu ngeen nekk mën nañ koo saafara ndaw yi lan la ñaari alternance yi soppi seeni dund